woon jafe-jafe jafe-jafe daal mooy li ma la wax rek benn pàcc bi nga xam ne fa la fay fi la fàqmaan yi nekkoon ak yooyu te tabax yooyu kenn dafaa nekkutoon moo tax kenn liggéeyu fa dañ ko faa tabax rek bàyyi ko fa noonu samba bu yi foofu lañ féete woon di def naka suuf noonu ba faat fi ñetti bakkan loolu moo jur lii nag tey jii suñu place la woon ñoo ko jëndoon waaye nag euh, def nañ ko ëddee Serigne Touba waaw def nañ ko ëddee Serigne Touba ndax lépp ndigal la rek ndigal nag dafa doon loo xam ne bu xasee ba jóg daanaka boo ca bokkee mu amatoo looy xaar wala looy déglu moo tax xëy na dale bi sax suba la waaye nag comme que nuñ ay taalibi lañ te ci dëkk bi lañ dëkk euh, xalaatuñoo na am lenn ndigal luy jógee ci xalifa bi maanaam nuñ nu ñu di ko kale waaw nuñ daal lii ñu fi amoon ñoo ko moomoon waaw ñoo fi doon liggéey di fi sàkku ay dépense di fi sàkku addiya di fi sàkku di liggéeyal sëriñ bi nekk ci dëkk bi wax dëgg yàlla lii am nañ ci xol bu sedd guy ginaaw bi mu nekkee ndigal sëñ Muntaxa nuñ am nañ ci xol bu sedd guy doon na depuis vendredi bële bi histoire bi amee ba gars yi di fiy sànnante ak police ay ay xeer ñuy sànni ay grenade lacrymogène fi mu ne am na mbuuka sama mbuuka bee am na lu ca nekk loo xam ne ab grenade ci dal ba daa lakk biñ paree ci loolu nag lañ dikk daan ni dañuy toj fii mais man avant loolu fekkoon na man programme na xam naa ne moom buñ tojee lii man ci laay bokk ñële nag ñoom lañ doon laam-laamee ba xam ndax dinañ ci bokk wala duñ ci bokk far yàlla dogal ñu bokk ci gis nga ko nii daal kenn ku ne daal yaa ngi programme di foo xam jëme fa sa bagage ay nit nag lan yoo xam ne dañ fee nekkoon di liggéey te nit moom fu mu mën a nekk bu jàmm amee day liggéey bu jàmm amul day liggéey kon yàlla na nu yàlla may wér goo xam ni dinañ ci man di yëngu lu dundale sunu njaboot. saa bagage yaa ngi nii mënu ko yóbbu tey mënu ko yóbbu suba ndax ëmmalu ma ko fayale damay toog ba xay ni mën naa ko yóbbu bu fekkee ne buñ ko jëlee suba ma ñàkk donc saay bagage laay def waaye mënu ma ko yóbbu tey subaat góomu ni mën naa ko yóbbu. in fokk moom dinaa fi yenduwaat ay ñaari fan wala ñett buñ ma ko mayee ma man a yóbbu saa bagage damaa demaan Kajoor suñu dëkk léegi bi ma demee dëkk ba am fa ñetti fan ma ñëw ñun ma ajj ma pile la ñuy dajji bi looloo tax man barki démb laa ñëw waaye dans trois trois jours rek daanañ dégg rumeur yi ndax marché bi day dafa xaw a daal day ñaari pàcc benn pàcc bi fi la fàqamaan di nekk bi fi la liggéeykat yi nekk biñ déggee riir mi rek dañoo jàppoon fi fàqamaan di nekk rek foofu lañu lañ fi jëlee waaye nag ñun dar dernier jour tey la fi bàyyi faale jaar na sëñ bi lii ci la bokk moo waral ñun bett nañu tey moom bett nañu lool waaye nag déggoon na ndëj waaye jàppoon na dana yaatoo nii daal jàppoon na ne côté fàqmaan yi rek moo jëkk waaye à la fin wax ne dañu mujj maas li lépp daal waaye nag comme que ndigal la ñun moom ay ay taalibe lañ di maam taalibe ndigal rek ndigal lu bàyyi ko ci sëñ moom jëfe rek actuellement may wax yow nii amuñu fenn fu ñu jëm kenn ku jël sa bagage moom da ngay dem yóbbu sa toog di xool ba affaire daal ba xam ñu jox feneen du ñu jox feneen waaye actuellement nii fi mu ne nii ku fi jógee rek sa kër sa kër nga yóbbu say bagage toog dégloo amuñu fenn fu ñu jëm borom kër doo nga fi nekk nag ay père de famille rek ñoo fi nekk di fi daan seen doole. lii am na ndigal la dañ koy nangu ndax ay taalibe lañ taal moom moom ndigal rek la jëfee. loo xam ne moom di soow bu njël la bu boo xam ne moom xam naa loolu ginnaaw du yomb li gën a gaaw moom mooy def li ndigal li ñu santaane rek parce que man sama papa magasin bi moo ko moom magasin bële bu mag bële fii diggante bi am na fi lu ma ñeenti place yoo xam ne benn bu ci nekk mu ngi yéene woon deux millions cinq cent depuis 2017 mi ngi koy luyee xëy na nag coow am na histoire am na mais marché moom na fa nekk cent ans coow du jóg waaye lu war am nag day am ñun ay beer lañ yoo xam dañ fi am alal moo tax ñu ñëw fi assister ko pour dindi sunu li nga xam ne moo lañ fa am balaa suba di yàq loolu boo yemee ci liggéey ak jaamu yàlla yaakaar naa doo am benn gàllankoor ci kaw suuf waaw waaye na am na loo xamante ni bu ci raxee ci suñ biir loole nun ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu ñoo fi yëngu ñoo ko waroon a xeexal suñ bopp avant muy àgg ci kilifa yi nun nag man jàpp naa ne lépp lu ñu fi dal xëy na dañ nañ ci am yaraanga ndax ay ay xale la yoo xamante ni yarawuñ xale yu yaru yu fi dajee dong la waaye fii man gisuma fi bandi gisuma fi wayu ndax bu xale yoo xam ne boo buñ dajaloo boo waaxu woon mu dëgër jaar seen biir ñu tasaaroo loolu du wayu wayu amut foofu ay xale yu yëru dong laa fi gis yoo xamante ni ci dëkk bii lañ dëkk ñàkkub yar dong moo leen dajale woon fii waaw nuñ waa marché bi nag ñu bàyyi bàyyal leen ba ba lii tey daal ci suñ kaw ndax fii ay borom kër xëy na ñoom ay woyu lañ waaye ay borom kër mi ngi fi woon yoo xamante ni dañ doon liggéey di sàkku dépasse ak addiya di yóbbu ci seen di yóbbu seen kër. ndax ñun ñii di wax ak yow am na benn waay bu woon fii ci ñun Mamor juuf aw yat lañ ko fi dóoroon samedi lañ ko ko dóor. sam samedi lañ ko ko dóor samedi ba del si altine mu wàccub liggéey te fii la doon ñawee ci ñun bay baat la doon ñaw fii fii la place am newoon ci ginnaaw xam nga loolu kon bakkan moom moo gën a foor lépp liggéey moom jaamu yàlla la waaye nag fu jàmm amut kenn du fa mën a jaamu yàlla ba dafa liggéey. fa nga xam ne fa lay woy nekk di fa def naka suul noonu foofu la ñu waxoon ñu jëlee ko fa waaye nag ginnaaw bi dem ne ba ci biir a ah, ñu am ndigal loo xam daal maanaam dañ ne léegi la fi lépp jógee ndigal nag moom jëfee rek. ak lu mën a métti ndigal moom jëfe rek comme Sëñ Muntaxa moo joxe moom ba fi amoon cent ans tamit tey jii nii nii boo demoon Maroc ba gis fa ñoo xam ne nga leen fay denc kon bu fi bakkan yi desee rek alhamdulilah rabbil alamin ñu jàppoon rek fi faqmaa nekk rek foofu la doon yem waaye tey lépp ci lay bokk am na wala am na délégué yëpp délégué yëpp am na fi dem nañ fi fu ñu war a dem dem Cheikh Bass ak war a dem rek dem nañ fa ba ci mairie bi yëpp dem nañ fa Cheikh Bass yëpp dem nañ fa waaye na foo dem ñoo dañ lay xamal ne ndigalu sëriñ bi la waaw ndigal sëñ bi ne moom jëfee rek moo xam ñu dëkkee wàllum kër ñang moo xam ñu dëkkee mbal moo xam ñu dëkkee okaas moo xam ñu dëkkee jàkkee muuma insécurité bu métti métti métti métti boo xamante la dëkkee fii nii ba fu ñu la ko mën a wax rek ci àdduna rek toll na ndax boo xoolee diggante 6 mois ñu refi 3 personnes loolu ku ne xam ne c'est pas ku ne xam ne c'est te loolu lu ñu ko defee fii la ñu ko defee ak fii ngay seen foofu rek lañ ko defee te ñun ñu dëkk fii nii mënuñu mënuñu yor benn jur goo xamante ni mën nañ ko yor ñuy dëkk su ko li ñu gën a métti nag daanaka ba war waraloon li si ëpp booy sax am ñu génnoon ci àjjuma gi paas doon toj muy ki nga xamante ne am na ku am responsable koo xam dafa nekk fii nen ñiy def yenn yi ci koñ bi leen dëkk te loolu c'est pas vrai ku ne xam ne ñi dëkk ci koñ bi fii nii jub lañ leen xamee ak def lu baax ak jaamu yàlla jàng xasi rek si lañ leen xamee. waaw ñu moom dañoo sonn ndax fukk ña weer yu jot ñu ne fii rey nañ fi nit waaw lii moom ak sonn la moom dañoo sonn waaw dañoo sonn waaw. ndax fii fii fii fii dafa yoon la sax ñu toj ko yoon la sax ñu toj ko ndax fii ñii ñi ñi ñu fi rey dafa xaw a bëri.